aousu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim noo ngi fas yéene waxtaan ak yéen ci euh, li nga xam ne moo di lu jëm ci xam-xam akuk taalibe ak diggante sëriñ akuk wilaayatu ak taalibe na war a fonke sëriñam ak it màggal gi nga xam ne gi nun murit noo ngi koy màggale sunu sëriñ di sujud ci loxom manam di fon dañu danoo munta wax benen baat bu sujud waye dana gëna leer ci kanam nu li ni def bokkul ak sujud ci ni ko arab euh loolu dana gëna leer ci kanam ci bir loolu itam daan waxtaan ak yeen itam su fekke xaj na ci band bi ci walu ak njëbbal ak ku walu ku walu wut ak njëbbal na ngay mel ak it te loolu lepp non ko fasiyene tek ci alquran ak hadith yonent bi alayhi salatu wassalam ak wax len nak téere ya nga xam ci lañu jëlé nu ni wax ak ni mu ya nga xam ci la wax janay wax nek kon nu fasiyé tambalé nak yeen wax wax bi ñu leen xamal ne xam-xam borom xam-xam yi nee ñu ñaari xaj la xam xam sahir ak bu batin sahir bi moy tax nga mëna jaamu yalla digënté julli ak wor ak ya ci dess ci sahir si mu rafet jama jamajee xam na defare bopp batin bi moy tax sa ak sa borom mu nangul la jaamu yàlla ga ci nangu wiin woo xam ne wu sell la sa ak sa borom loolu nag la sëriñ bi wax ne alhilmu hindal xulama yanqasim li zahirin wa batinin siran kutim zahiruhu muslihu lil amali wal batinu muslihu lil axwaali fa awalun bismi tafaqquhin duhi wa saani anhum bi tasawufin waxi muy ñaari xam-xam diggante fiqhu ak tasawuf benn xam-xam bi mooy xam-xamu fiqhu te mooy bi atte sahirus jaamu yàlla gi benn bi ci des mooy tasawuf te mooy atte baatinu jaamu yàlla gi sa diggante ak sa borom bu ko defee itam nu gis ne diine ñetti xaaj la gëm yàlla ci tawxiid ak lislaam maanaam sharia ci fiqhu ak ihsan ci tasawuf su ko defee nag suñu seetee na ñetti xaaj yooyu mooy diine nag kon léegi nu daldi xam ne kon xam-xamu tawxiid mënta ñàkk xam-xamu fiqhu xam-xamu fiqhu mënta ñàkk xam-xamu tasawuf it mënta ñàkk ndax mooy tax ñetti xaaji diine yooyu nga xam leen xam na nga leen na nga jëflante ak ñoom xam-xam bi nga xam ne moom la war a jiital nag ci borom xam-xam yi nee ñu bi nga war a jiital mooy fiqhu ginnaaw boo gëmee yàlla ba noppi ah, boo gëmee yàlla ba noppi xam-xamu fiqhu moom nga war a jiital teg ci nag xam-xamu tasawuf waaye képp koo xam ne kii dangaa wax ne fiqhu doy na ma moom rek laay jël te du ma jël tasawuf serigne si neñu yamu yamul xiyaamati bu dikkee da nga torox fa kanam sa borom da nga al ko itam kep ko xamne ki da nga wax ne alaaxiraam ma gënal tasawuf lay jël bàyyi fiqhu borom xam-xam yi dañu la xalak ci aduna te kuñ xalak ci aduna kat jëmbul yamu xiyaamati da nga xalaku fofu kon li ci war moy nan am fiqhu nan am tasawuf nan jëfandikoo fiqhu nan jëfandikoo tasawuf motax nak serigne bi nan suma taqdimul fata al fiqh ala tasawufin wujubuhu qad injala فمن إلى إخلال الأول انتما هلك في الدنيا بحكم العلماء ومن يكون بالثاني سالإخلال يهلك غدا بحكم سل جلالي فواجب على الهبار التراجة هو مالك ينال الأجرة كن نن أم فقه نن أم تصوف تيت نن بلين يمال نيوم نيار نيب خامل كن منو جامت باي مرامة مني ملي تبخب إتاس bu jëkk bi boo ko amul doo am bu mujj bi waaye boo amul bu boo amul bu mujj bi sa kër du mat ñu daal di gis ne kon léegi tey euh, julit kon ki mata top deug deug deug deug moy ki nga xamne ki mat na serigne te mat a topp mooy koo ki amna ñaari xam-xam yoyu bo nopi diko jëfëndiko jëfandikoo ci jëfandikoo wu sel loolu nak motax euh ñu dal li gis ne tasawuf mom mom motax serigne bi kon wax ne wa man li fiqhin wa tasawufin jama fa huwa allazi xuqa lahu an yuttaba koku la wara top kon nak tasawuf mom xajib ñaarel bi manam xaaj mujj bi ci xajidi ni tamoy tasawuf boobu xaaj moom foo ko fekk tawxiid nga ca biir tasawuf ma maanaam fiqhu it ma nga ca biir fa ca tawxiid nekke moo di fa sëñ wax ne ne wa baxdu fa tawxiid lu qismayni munqasimun fa saara tawxiidayni wa fa awalun takalumun wa saani taarufun laa tunkirel bayaani wa zaaka lil umumi yunsabu kama kaana ilal xusuus saqadintama dafa wax ne tawxiid ñaari xaaj la tawxiidul aam ak tawxiidul xaas tawxiidul aam mi ngi tàmbalee ci ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mooy dañ koy wax fas ko ci xol tawxidul xaas nag mooy yëg gi nga yëg yàlla ci jamono yi nga xamee ni bi ne yaa ngi bàyyi ak tereem maa yaa ngi jëf ak ndigalam yëg googu mooy li ñuy wax tawxidu taaruf xam-xam lu gi nga xam-xam lu yàlla di ko jéem a yëg ci biir jaamu yàlla gi loolu mooy tawxidu taaruf te loolu mooy tasawuf mu ne nag bu njëkk bi nag te mooy tawxidul kalaam ñépp ngir nga nekk jullit rek fokk nga am tawhidul kalam boo nanguloo ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sa njulit sotteegul yàlla nanguloo la dara yonent bi nanguloo la dara bu bu mujj bi nag am na ci jullit ñoo xam ne ñu amuñu ko te teewul ñu dib jullit waaye nag ña ko am ñoo gën ña ko amut nag fuuf te loolu mooy tasawuf xaajub tasawuf ba mu ko defee tasawuf moom yi nag su suñu ko bëggee xam dañuy daal di gis ne moom mooy bàyyi lépp lu yàlla tere dëddu jëm ci sa boroom fas yéene jëfandikoo it lépp lu mu digle te it ànd ak i teggin ca na ngay bàyyee la yàlla tere ànd ak i teggin ci na ngay jëfandikoo la yàlla digle ànd ak i teggin nag ñetti xaaj la teggin sa digganteeg sa borom tegginteeg sa digganteeg sa morom teggin sa digganteeg sa jëmm teggin sa digganteeg sa borom mooy bàyyi lim digle dafa lim tere te rafetal bàyyi wiin wa ak defin wa sa digganteeg sa morom teggin ya moo di la nga bëgg sa bopp bëggal ko ko la nga bañal sa bopp bañal ko Ah, bul teg cib deram lu dul loo xam ne lii bëgg nga ñu teg ko ci sab der te it na koy laabiri ci lépp loo xam ne lii xam nga ne da koo xamut mbaa da ko mënut di ko ci dimbali teggee sa digganteeg sa jëmm nag moo di la nga xam ne lii yàlla wax na ko ne qu anfusakum wa ahlikum naaran wattandikul leen sawara yéen ñii na ngeen ni wattandikul seen waa kër ëllëg lay tax a dem sawara na nga ko baax yoon yoon yoon wa bu ca jaar bul ànd ak ku jaar bul xool ko ca jaar te it bul bàyyi sa njaboot ñu di ci jaar loolu mooy teggin sa digganteeg sa jëmm te kan loolu suñ bëggee xam tasawuf nag dañuy del siwaat nag ci euh, sahlu bnu abdullahi tasaturi nee na الصوفي من تصفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع لله من البشر واستوى عنده الذهب والمدر لولو ميغي تير بي نيوخ تذكرة الأولياء خاج بو جيك با باش نيمورو 264 سوفا دامي داغا فك سيرلو عبد الله واخني صوفي موي كيغا خامني كي ген na ci lepp nex nex luy waral bakkar ak lu koy ñoddi luy dox digëndim ak borom di nex da koy bax foko ko fekkit xol ba day fees la ki xalat ci kéemtaani boromam foko ko fekkit day bàyyi nit ñi ak li ñu ne jëm ci yàlla mi nga xamne mo nekkal nit ñi ak li ñu ne foko ko kogu day sori aduna sori way bo xamne du bëgg dara ci aduna be wurus wa ak doñu suuf yalla lay male képp loolu la sahlu ibn abdullahi wax su ko defee nu tegal la ci hadith bo xamne mi ngi nekkon digënté yonent bi alayhi salatu wasalaam ak haris yonent bi fu ma sa xëy ne xaaris kay فقال الحارس أصبحت مؤمنا حقا فقال الرسول عليه السلام انظر إلى ما تقول يا حارس فإن لكل حقيقة لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك فقال عسلت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها وفضتها ومدرها فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري حتى سرت أنظر إلى عرش ربي بارزا وأنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وأنظر إلى أهل النار يتسارعون mu wax xaaris noo xëyee mu ne ko xëy naa amu gëm nag dëgg-dëgg mu ne ko ah na sa gëm demee mu ne ko sama gëm de ni mu demee moo di génn naa sama bopp ci adduna génn win woo xam ne wi wu set wecc la bat fii nu toll ne may wax ak yow doj yi ak wurus wi ñoo yem ci man képp dara gënalu ma ci xaalis beeg doñu suuf yi yem ci man képp dara gënalu ma ci danaa di guddi géppit danaa ko di fokk maanaam bañ a nelaw ngir jaamu yàlla bëccëg bi danaa ko di mar ngir di woor ak a jaamu yàlla ba fii ma toll de di wax ak yow daanaka mi ngi maa ngi jàkkaarloog sees borom ba ak nam ca tooge mu mu fis fiñ mu fis fiñ ma di ko ma di ko xool daanaka itam maa ngi xool waa ajana ñu nekk biir ajana di siyaarenteek a saafonte daanaka it maa ngi jàkkaarloog waa sawara ñi jooy aka daanu ak a jóg loolu la xaaris waxoon foofu nag ci wàllu tasawuf loolu day na cee xam kon nu jàll ak yéen ci li nga xam ne lii moo di ak wilaayatu ak wilaayatu moom boo demee ci risaal al Qushayri ca passe numéro 672 da nga gis ne ma ngay wax naan al waliyu yaxtamilu amrayni imma an yakuna ala wasni failin mubalaghatan min al fail misla alimin wa qadir wa xasanahu wa huwa yatawal wa huwa huwa man tawala taatuhu min geyri masiyatin ba wax ja jeex lamu la wax nak ci wolof modi di waliyu ñaari xaj rek la benn xaaj bi mooy bi nga xam ne ak wilaayatoom ak góor góorgóorloom ci bàyyi tere suñu borom ak góor góorgóorlu ci sax ci ndigali yàlla lu mu am ci wilaayatu loolaa ko ko may kooku mooy xaaj bu njëkk bi xaaj bu ñaareel bi mooy bi nga xam ne ak wilaayatoom moom daf ko judduwaale ci cosaan yàlla ko ko indil mu ànd ak moom cosaan kooku yàllaa koy wattul boppam ndax yàllaa denc moom ab dencam su ko wattuwul denc ba day yàqu mooy dox digganteem ak seytaane mooy dox digganteem ak lépp lu ñu ko mooy yàlla kon dafa mel ni ki daf laa wala yu defal la ko ñaari xaaj ni ki nga xamee ne noonu la ahlu tasawuf di wax naan ñi jaar ci yoonu yoonu yàlla wi ñeent lañu saalikun mujarrad mooy koo xam ne kii dafa jóg rek di jaamu yàlla te it amul ab waajtaay woo xam ne moo ko tax di yàlla daanaka yi sax amul sëriñ bu wér boo xam ne bii ci la ci la di jaamu yàlla kooku mooy saalikun mujarrad ku ñaareel ki mooy saalikun majsoob saalikun majsoob mooy ki nga xam ne kii léegi tey jóg na di jaamu yàlla waaye nag yàlla defal na ko ndimbalul mu am sëriñ bu baax ba mu taseel boo xam ne bi mën na koo dimbali won ko yoon wi ba mu jàgg yàlla roofu ca ndimbal la di ko ñodal boppam di ko won yoon wi muy jaar kooku mooy xaajub ñaareel bi ñetteel bi mooy mëj sobu mu jarat mëj sobu mu jarat mooy ki nga xam ne kii dafa jóg judduwaale nag ak ak baax ak ko sell judduwaale ak wilayetu waaye nag moom jëfut dara loo xam ne luy dimbali wilayetu ga la ba mën a màgg ba mën caa am may yu bari nga xam ne sa kuutub sëriñ bu muy àndal bu koy dimbali ci dara te itam jëfu te wilaayatu gi képp la yem euh, da koo ñoŋal waaye yokku ko kooku mooy ko ñetteel ko ñeenteel gi mooy majjusoo bun saalik maanaam majjusoo bun saalik nag mooy ki nga xam ne kii léegi te indaale na waajtaayu ak wilaayatu indaale na wilaayatu gu mat tey dal nay seet sëriñ si fi nekkoon kenn ku nekk mu seet nanga nekkee woon mu jéem naa jaar jël jël koo xam ne kii sëriñ la bu mat teg ko ci kanamam di ko roy di jëfandikoo ndigalam di bàyyi ay tereem noonu ni la nooy mooy ni nga xam ne noonu la euh, wël yi toll wu mujj wi nag mooy wi nga xam ne mooy wi ci man woowu nag defe naa buñ ko seetee ci suñu digganteeg Serigne Touba moo ciy gën a mat misaal ndax bi mu jógee Maamoor Anta Sali ci sëriñam waa waajuram la daal di jël wird wa mu yore te mooy wirdul qaadiriya di jëfandikoo ndigali baayam di bàyyi ay tereem def ko muy sëriñam te sëriñam boobee ka sëriñ bu mat la woon ba mu ko gisatul mu daal di mooy ci Cheikh Abdul Qadir Jilaani fekk na booba mu mën a jàkkaarloog Cheikh Abdul Qadir di jëflanteeg moom ba mu ba mu ko defee nag bàgg ci war a jàpp ci yonent bi dafa dafa bàyyi ñoom ñëpp jàpp ci yonent bi wax ne baana li kulli man la woo maa qulu anna wasilati huwa rasulu noonu la sëriñ bi def yooyu nag ci misaal mooy mbirum li ñuy wax ak wilayetu léegi nag ñu ne ndax wàllu yu moom amati na wala amatul boo demee ci risalatul xuseer yi risalatul risalatul xuseer yi da nga ca fekk ci numéro bu ñuy numéro passe ba ñuy wax 631 da nga fekk muy wax naan laa yakunu asrun min al usuri muddat al islaami illa wa fihi cheikhun min shuyuqi haasihi taifa ممن له علم التوحيد الخاص والعام يؤم به القوم مونه جامونو جي با يونت بي ديكي اك لغي لي فك الاسلام ماغي في جامونو جيب جو خانو جي الاسلام ني جامو يالا سي بير الاسلام نيغا فا نلا وورني سيرينو تصوف ماغا فا بو مات بو خاني امنا ولايه غوم مات غوم جيلي سي بي ندخ su fekkente ne koku amut kon l'islam du meuna taxaw ndaxte ñooñu ñooy wuute yonent bi ci taxawul islam na ko yonent bi a taxawoo ba taxoon sunu boroom ne ko wa maa laaw laahu li yu'azzibahum wa anta fihim du ma leen mbugal mukk li fekk yaa ngi ci seen biir ndax ruus naa la ngir ni ngay taxawoo sama baat na nga xam ne it soo demee bàyyi leen fi su sunu doxee ba àgg ci kenn nekkatu fi nag koy jéggaloo ko topp sa ndigal bu keroogee nag dinaa leen xalak waaye nag wa maa kaana laahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruun li fekk kuy jéggalu ak a topp sa ndigal mi ngi fi kat ak a xeñ sa mboor ngay jox ko say mu di ko doon li fekk kooku ngi fi maa ngi lay léegi tey du leen alak kon ci biir loolu nu mën cee déggale kon léegi tey wàllu moom ba ci suñu jamono ji mi ngi am te am na ci suñu réew mi le amin wu leer nin koy xamee moo di foofu fekk wàllu yi woo xam wu mat la borom xam-xam yam taseel ñi ci ëpp xam-xam ñëpp dañuy ànd ak moom ànd ak moom ci jébbal ko seen mbir am ànd ak moom ci di barkeelu ci moom loolu kay ah, dana dana leer ci mu wax la ne la sunu maam alxaaji Malik waxoon na ne moom day xam na ne Serigne Touba moo gën ci ñim jamonoonteel ñépp ndaxte su fekkonte ne amutoon benn tegtal bu mu bu mu ko mën a leerale bu dul xam gi mu xam Serigne Mbacke Bousso ak xam-xam ba ca moom ak sell gaa gëm gaa sori gëm sori ci boromam waaye teewut Serigne bu Bousso moom mu bàyyi loolu la defoon lépp mu nekk ci ginnaaw Serigne Touba di jëfandikoo ndigalam di bàyyi tereem mu ne borom xam-xam bu toll noonu képp ku mu ku mu topp ci yow nangoo jëfandikoo sa ndigal nangoo bàyyi sa tere mu ne kon kooka xam na ne moo gën ci li yàlla bind lépp ci jamono jim jamonoonteel kon loolu doy noonu misaal ci ne Serigne Touba ñim jamonoonteel ñoo ci am xam-xam ñépp àndoon na ñoom moom te it Serigne Mbacké Bousso moomu doy na ci misaal te it amul kenn koo xam ne kii mën na laa natt sa xam ci xam-xamu Serigne Mbacké a doon loolu it danañ ci jël misaal ci jamono yu jëkk ya xam Ahmad ibnu Hanbal mas naa toog ak Shafii yu ku ñuy wax Seybaanu yi ñëw ba mu dikkee mu wax ne Seybaan mii danaa ko yee tey ci ñàkk xam-xamam gi imaam Shafii yu ne ko déet bul ko yee bàyyi ko mu ne ko danaa ko yee dal koy wax ne ko yow Seybaan luy sa xalaat ci koo xam ne dafa fàtte ak julli ci biir julli yi juróom fàtte ko nag ci diggante ñaari ñaari guddi yi maanaam guddeeg bëccëg xamul nag gan julli moom la ca julliwut wut léegi tey kooku du dib atteem saybaan daal koy wax ne ko kooku de foo ko fekk xol ba dafa lakk ba xam digganteem ak boroomam foo ko fekk dafa fàtte yàlla la war ci moom mooy dañ ko war a toroxal duma ko yar ko ba mu fàttali ko boroomam saxal ko nargan ko ca nag ba du ko mën a fàtte loola mooy la ca war ba mu ko defee nag tontu loolu Ahmad ibnu Hanbal séentuwu ko woon ci saybaan ndax saybaan nee ñu feru doon ijji jàppoon Ahmad ibnu Hanbal jàppoon na ne xamul dara jàppoon na tontub saahir ba sax xamu ko sakkantuma nag tontub xaqiqa ba ba mu ko defee nag bett ki ko tontali li bett nag moo tax mu ne daal la fi suuf nag di xam ba mu ximali ke nag saafin yu ne ko waxoon naa la ne bul yëngal waa ji kon ginnaaw nga xam ne kii ak ñàkk xam-xamam gi nii la mel kon léegi loolu leer leer na nañu ci ne kon euh, ñi nga xam ne ñooy yoonu ñoo soobu yoonu tasawuf yoonu tasawuf moo moo gën a wér ci xam-xam yi naka noonu itam seeni sëriñ ñoo gën a dëgër ci sëriñ si képp koo xam ne ki am nga sëriñ bu mat bu mel ni sëriñ Tuubaa jaar ci yoonu tasawuf ci ni mu ci jaare jaar ci yoonu xaqiqa ci ni mu ci jaare nga xam ne yaa ngi jëfandikoo ndigalam di bàyyi ay tereem nga xam ne kon am nga xol bu sedd ak xel mu dal ci ne ginnaaw yaa ngi jëfandikoo ndigalam di bàyyi ay tereem la mu am diggante boroom yéen a ko bokk kon keneen kuy wax koo xam ne kii la muy wax ak réer a tax mu di ko wax yow waxi kooka waru laa jaaxal waru laa féete fenn itam te itam la muy wax yi koy waral yépp yàlla nañ si yàlla musal moo di sàggane diine rek ak sàggane sunna ba xamuñu ko ci sunna na mu tëddee dëgg dëgg dëgg ak toppale ko genn wet hmm, loolu yépp nag seytaane moo koy teg nit su ko defee nag ñu ñëw nag ci ab taalibe taalibe moom du kenn ku dul ki nga xam ne kii mooy soofi bi nga xam ne léegi tey ak sellam digganteem boromam ci ni leen ko abdullahi sahlu bnu abdullahi waxe woon ak ni leen ko xaaris waxe woon rek loola mooy ab taalibe ab taalibe sëriñ bi nee na al muridu man laa yamlikuhu man laa yamliku cheyan wala yamlikuhu cheyun illa allahu sëriñ tubaa nee na taalibe mooy ki nga xam ne kii moomu dara dara it moomu ko lu dul yàlla lu muy moom yàllaay tax mu di ko moom lu muy fab ci kéemtaani yàlla yi ak baaxu yàlla mu ci la koy fabe lu muy bàyyi itam ci tere yàlla ci la koy bàyyee yàlla képpit lay nangu mu moom ko moom lay nangu mu jëfandikoo ndigalam moom lay nangoo bàyyi ak tereem mu tekkeen takunu muridan suma fikk iraadatan fa in lam turi shay'an fa anta muridu da ngaa bëgg nekk taalibe bayil bëgg-bëgg aduna yépp bayil bëgg-bëgg yépp te bëgg yàlla bayil li bayil ragal ragali aduna yépp bayil ragal ragal yépp lépp lu yàlla bind ragal yàlla su fekkee def nga loolu bëggoo dara lu dul yàlla ragaloo dara lu dul yàlla sàkkuwoo dara lu dul yàlla kon keroog ba nga mel noonu ab taalibe gi ba mu ko defee nag ab taalibe moom daa war di euh, amub yar tey daa war a yar ba ci koo xam ne sëriñ bu mat la bu ko jële ci bi alayhi salaatu sëriñ bu mat dafay jële ab yaram ci yonent bi mbaa jële ko ci ku jële ci yonent bi mbaa jële ko ci ku jële ci ku jële ci yonent bi ndaxte yonent bi kat ba mu ñëwee suñu borom daf ko waxoon ne ko wattabi milata abik ibrahima xanifan toppal seen ba ibrahima yoru mokk la ba mu doxee ba war a weesu ibrahima it dafa wax ne adda ba nii rabbi fa ahsana taadibi saa borom yar na ma rafal yar ba yar kon nit kuy taxaw ci kaw suuf sam xel munta yaatu sa xam munta lëw ba nga wala nga muus ba àgg ci dem ci sa borom am ngërëmam te amoo te jaaroo ci kenn ku la yar kon nanuy wut koo xam ne ko àgg ci yàlla la mu dinu yar ndaxtele mu bañ a dagg suñu digganteeg suñu borom dagg suñu digganteeg yonent bi wa man tawassala bi waasilil wasal wa man tawassala bi aksihi infasal képp ku jokk ci ku jokk da àgg da nga àgg ku jokkul ci ku àgg da yaa dagg sa digganteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi it ci biir lool nu mën cee dégg ne sunu ma mëne su koo topp ca nañ ko war a toppe te du nit la ko leeralal nit ka la koy leeralal nag kooku moo di sëb sëriñ Abu Yasil Bustaani nee na man lam yakun lahu ustaasun fa ustaasuhu seytaanu képp koo xam ne ki amulub sëriñ bu lay xamal sunna ngir nga man ko jëf ci nako yent bi da jëfe di bàyyi tere ci nako yent bi da tere nako yent bi da bayé na la wóor ne ku amul sëriñ bu la bu la defal lolu kon seytaane mo la ñoddi te ko seytaane ñoddi moyalal na la sunna kon yàlla na yàlla musul ci ñak ab sëriñ mu tekki ne sëriñ bi wax ne fa kullu man adima cheikhan mursida fa shaykhuhu cheytaanu haythu qasada ku amutub sëriñ kat bu jàpp ne amub sëriñ ah kay seytaane mooy sëriñ moo lay ñoddi moo lay moo lay jëmale fa mu jëm war na ci taalibe itam mu topp ndigalu sëriñam ginnaaw bu mu ko amee tamit sëriñ bu mat bàyyi ay tereem itam ndaxte képp koo xam ne kii bàyyi nga topp bàyyi wattandi ko tere sëriñ bàyyi topp ndigalam na la wóor na yaa dagg sa diggante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax sëriñ boobee mat te jële matam ci yonent bi mooy ki jokkale sa diggante ak bi war na ci taalibe itam mu bàyyi ak gaaral digganteem ak sëriñam ah, daanaka loolu sax danu ci jàll ba ñëw rek ci ni nga xam noonu la ko sëriñ bi waxee woon ci bàyyi ak gaaral ak bàyyi bëgg bàyyi sa bëgg ci bëggu sëriñ bi loolu yépp wax nañ ci ay wax yu bari yoo xam ne ni yooye doon na ci misaal dana leen ci indil misaal nag ci yonent bi dañ ko war a bëgg mu gënal sunu jëm ak suñu ndey ak suñu baay ki nga xam ne mooy suñu sëriñ wóotu suñu diggante ak yonent bi itam kooku it nan bëgg yonent bi bët yi nuy xool yonent bi lañ ko war a xool euh, la ñuy jëflante ak yonent bi buñ ko gisoo rek lañ a jëflante moom képp koo xam ne kii gis nga sëriñ bu mat bu mel ni sëriñ Touba te jëflante wul ak moom li nga xam ne boo gisoon yonent bi jëflante ko ak moom kon loolu yonent bi dana xam ne soo ko gisoon doo jëflante ak moom la nga jëflante ak moom ndax kon waxuloo dëgg bëgg yonent bi nag moo tax na war a bëgg sëriñ Touba te yonent bi moo ne te alxuraan yi moo ne annabiyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim ak allahu rasulu awlaa bil mu'miniina min anfusihim lii xadis la lee yeneen lee sunna la ku ñuy wax amiru shu'araa yi itam moo wax ne ah uqaddimu ustaas yi ala xaqi waalidi sama sëriñ de xaq ji ma koy jox moo ëpp ji may jox sama sëriñ moo ëpp ji may jox sama ndey ak sama baay ndaxte fa haasa murabbi ruuxi wa ruuxu jawharun wa haasa murabbil jismi wa huwa lahu saraf sama sëriñ dafa ma yaral sama ruu te ruu gi mi ngi mel ni wurus te sama ndey ak sama baay dafa ma yaral sama yaram sa sama yaram mi ngi mel ni aw xor yaakaar naa ne nag ku dugg ca géej di wut wurus am xor woo xam ne am na wurus boo ko génnee boo ko tojee xor moom da koy sànni dangay jël wurus wa kon wurus wi moo gën xor wi ki yar roog yi moo gën ki yar yaram wi kon sunu sëriñ moo gën ci nun ki nga xam ne kii du uh, mooy sunu ndey ak sunu moo tax nu gën koo nu war ko gën a bëgg sëriñ soosu nag jafee xam loolu bu nu ko toppee dañuy dox di dox ba ñëw nag ci uh, li nga xam ne moom lañ war a yare moom lañ war a fonke sëriñ bokk na ci noonu taalibe ni nga xam ne noonu lañu bëgg di màggale sunu sëriñ léegi tey di mokk ngir moom di jëfandikoo ndigalam di bàyyi tereem fës ko yéenee toppit ci lépp loo xam ne li lu mu digle ak lépp lu mu tere di ko màggale it ah sunu sunu nuyoog moom mbaa sunuy tàggoog moom nu jël dox ko sunu ñaari loxo daldi jël sunu bakkan ak sunu sunu gémmiñ fóon loxoom loolu mooy cosaanul su jóot ci yoonu murit ëppanug murit yi nag xëy na moo tax ñu di ci boole seen ab jë waaye jëbi loolu su fekkente ne boole nañ ko ci itam loolu taxut mu nekk sujjóot loolu danañ ci ñëw noon ni ñuy sujjóote ci sunu murit sunu sunu sëriñ mooy dañuy dëpp sunu bakkan ak sunu gémmiñ ci loxoom ngir barkeelu ci moom ci yar bi nga xam ne yonent bi yar na ko ko bàyyi ci moom jeexiti leer ak jeexiti ngëneel yoo xam ne mi ngi jóge ci yonent bi ak wutu mu ko wuti ci sunna sa loola moo tax nuy def noonu ci sunu sëriñ loolu nag su fekkente ne Euh, def nañu ko kon loolu moo tax am ñoo xam ne dañuy yaakaar ne loola mooy sujjóot waaye dama leen a bëgg a leeralal nag sujjóot ci alquran ci laay maa ngi koy tàmbalee ci laay ji nga xam ne moom la kiy wax defoon ab tegtalam muy euh, wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walchamsu walxamaru laa tasjudu li chamsi wala lil xamari wasjudu lillahi lasi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabudoon loolu ngir nu xam lu muy tekki nag dëgg dëgg dëgg dëgg dama leen di yebal ci téere yi may leen di bëgg a wax tafsir bu ñuy wax ibnu kasir tafsir xalil maasur la boo demee ci téere boobee téere ba nga xam ne bu mooy téere ñeenteel ba da nga ca fekk ca paas numéro 102 da nga ca fekk muy wax naan xaala euh, rasulullahi an il xaafis an ibni yaala an il waqi an ubayin an ubayin xan ibni layla xan ubay xan abi subayrin xanil jaabir xanil nabi sallallahu taala alayhi wa sallam qaala laa tasubbu allayla wannahaara walchamsa walqamara wala riyaaxa fa innaha mursalatun rahmatan li qawmin wa asaaban li axarina mu ne yonent bi nee na bu leen di ŋàññi bëccëg bi bu leen di ŋàññi guddi gi bu leen di ŋàññi jant bu leen di ŋàññi weer bu leen di ŋàññi sawara maanaam ngelaw yi ndax ñoom kat defuñu dara ay mbindeef dong la ñu loolu ay mbindeef dong lañu yàlla di di ni ngir jariñ ci nit yàlla leen di yónni ngir lor ci nit loolu ci leen xamee ne kon jant bi mbindeef la weer wi mbindeef la kon képp koo xam ne ki yaa ngi sujjóot ngir jant bi yaa ngi sujjóot ngir weer wi kon léegi tey yaa ngi bokkaale loola ak bokkaale la loolu juboo nañ ci nun taalibe yépp xam nañ ko boo demee ci tafsir Tabari tam ca euh, numéro euh, maanaam mu jël téere ba nga xam ne bi mooy 22 25 22 25 téere ba ko boole soo demee danga ca fekk ci passe numéro 121 lii mu la wax te moog li te euh, ibnu kasir wax ñoo dëppoo tafsir ibnu almaraax yi itam soo ca demee ci téere juróom-ñetteel ba passe numéro 135 da nga ca fekk lii mu la wax te moog lii kiy wax ñoo dëppoo naka noonu nag téere yooyu yépp loolu lañ ci wax euh, kon sujjóot moom mooy dëpp sab ja rot dëpp sëb ji fi suuf non la ko téré yi waxe xarab ni mu xamé sujud moy nga jekki ci rot dëpp sëb ji fi suuf loolu moy sujud ci wu segal sa bop nak ngir fon loxop ku baax harap xarab tekkeewu ko sujud ta bat bi batum xarab la du waatu batu wolof kon nan bayyi fi mu tollu te bañ ko wessala fi mu tollu kon su ko defé nu del wat nak ci laay yi dess ta moy leral morom mi malaika yi fa muy wax naan wa isqulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu ila iblisa aba loolu kay suñ delluwaatee ci tafsir yooyu ma la waxoon kooku dana dananu gis ne kon tafsir bi nga xam ne bii mooy tafsiru tabari ca téere bu njëkk ba passe numéro 228 ak 229 ah ah am na xadis boo xam ne bii ma ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Bachir ibnu Muas xan Yasidin ibnu Zubayr هن هن رزيع هن سعيد هن قتادة قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كان السجود طاعة لله وتكريما لآدم وتعصيما لنور محمد عليه الصلاة والسلام كما في تفسير عبد الله الشبيري الشبري مجلد أه؟ باس نمرو 400 مانام 44 ak 45 numéro 44 ak 45 soo demee da nga fekk loolu wax foofu في سير القران leen Qur'an boo ci demee da nga li seen xutb boo ci ca passe numéro 57 da nga ca fekk mu ne innahu takrimu fi ala suwarihi li aadama salikal maxluuqu al musdawit soo demee ci tafsirul maraaxi ci mujjalat 1 passe 85 da nga fekk ne wa sujudul malaayika li aadama taatun lillahi wa taasimun wa takrimun li aadama alayhi salaam tafsir bu ñuy wax xaasimi mujjalat 1 2 boo demee da nga ca fekk ca passe ba passe numéro 102 da nga fekk mu ne amma sujud lil malaikati fi hibadun lillahi wa taatun li am li amrihi wa qurbatun minhum ilayhim wa tashrifun wa takrimun wa tasimun li adam alayhi salam lima lahu min masaya fadl fadlahu allah biha alayhim ñom ñep lool lañ ci wax su ko defé nak kon ñu wax ne sujud bi nga xane bi mom la malayka dun sujudul sujjóotal ñaari xaj la ben xaj bu jëk bi moy ñom dañ doon sujudul aadama ngir nañu jëf ndigalul seen borom mu di jaamu yàlla ci ñoom doon it loo xam ne jëf ga ñu jëf ndigal seen borom dana leen tax a gën a yegg gën a jege yàlla la ca topp mooy ñoom doon nañ sujjóotal aadama ginnaaw bu ñu defee ndigal seen borom it ba noppi itam jublu woon nañ ca nag ndax yàlla leen ko digaloon ñu màggalaale aadama màggalaale mbiram teral tiraanga ja yëgal yëg yëg ne tira yàlla teral na ko ci seen biir ngir xam-xam ya mu ko jox te joxu leen ko ak mbóot yëpp mu nëbbu ci ñoom te nëbb yi mu nëbbu ci aadama te nëbbu ko ci ñoom yooyu moo taxoon ñuy sujjootal aadama ci biir loolu it am na beneen sujjoot boo xam ne bii léegi tey yaaqoobu ak doomam yi ñoo ko defaloon yuusufu doomam ba nga xamee ne mbir ma xew na nettali ba am na ba yuusufu ñu jàpp ko ba mu dem mesara ba yàlla dimbali ko ba dëgëral ko ca nguur ko ba mu taxaw fa baayam jóge fa mu nekkoon ànd ak ay doomam ñu dikk ba ñu yegsee ñi mu daal yëkkati baayam teg ko ci kaw xarsu euh, xarsul maliki ba mu ko defee nag léegi tey baay ba ak doom ya ku nañu nag su jootal yusufu ba ñuy su jootal yusufu nag léegi di su jootal su yusufu daal lay wax ne yaa bati haza tawilu yaaya ndax dafa fekkoon mu wax ne inni ara ahada achara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li saajidina damaa gént gis weer wi ak biddiw yi maanaam jant bi ak weer ak biddiw yi euh, ak fukki biddiw ak ñaar ñuy euh, fukki fukki bidiw ak benn kon ñuy su ñu dima sujootal bisub keroog nag la la gént ga leer mu wax baayam ne ko lii kat mooy li ma géntoon ñooñu nag ba ñuy sujootal yusufu sujootaluñu woon ko ngir nañ ko jaamu ndax yaqubu ab yonent la woon ña nga xam ne ñoom la àndaloon di ay doom it kenn ku ci nekk am nga cir ci sa borom bu mag yusuf mi ñu doon sujootal ab yonent la kon sujjoot boobu ñu doon sujjoot te ñoom ñëpp dañoo bokkoon rot dëpp seen jëf suuf ngir màggal yusufu kon ñoom ay yonent lañu woon buy màggalub yonent te dëpp nañ seen jëf fi suuf te kon loola doonutug bokkaale doonutug mooy yàlla waaye ñi ngi koy def ngir màggal baaxug yàlla gi nga xam ne gi nekk na ci bi la yonent kon su fekkente ne Yaaqoobu ak euh, doomam yi ñoo defal loolu Yuusufu kon bu nu seetee diggante ñaari sujjóot yi dana nu gis ne sujjóotu malaayika yi nga xam ne sujjóotu euh, euh, sujjóot bi nga xam ne moom la yàlla tere ci alxuraan ci laata sujjóotu li suñu wàllu xabar yi kon yahuud ñoo tax mu di ko wax ak ña nga xam ne andoona ñoog balxiis buurub sabab bi nga xam ne jamononte wàn naag suleymaan ñooñu ñoo tax yàlla di tere ko sujjóot ci lu dul yàlla sujjóot ngir màggal jant bi sujjóot ngir màggal weer wi loolu lañ ci jublu woon ñoom dañ caa jublu woon amoon pësteefu fas yéenee jaamu jant bi fës yéenee jaamu weer wi ngir nee ñu yàllaa ko sàkk xëy na waaye ñoom sax amoon na ci ñoo xam ne jàppoon nañ ne jant bi mooy seen buur jant bi mooy seen yàlla mbaa weer bi mooy seen yàlla am na ci ñoo xam ne dañ daa wut garab def ko muy seen yàlla am na ci ñoo xam ne dañ daa wut aw doj jett ko def ko muy seen yàlla loolu mooy diine yahood yi léegi nag bi nga xamee loolu am na nag te yàlla moom mooy yàlla rek yàlla nag bëgg ñu xettaliku génn ci réer googu moo tax mu leen leen laa tas tasjudu li si wala lil qamari si lillaahi lazi xalaqahunna in kuntum iyaahu ta'buduun bu leen di sujjóot ci jant bi bu leen di sujjóot ci weer wi na ngeen sujjóot ci yàlla mi nga xam ne moo bind jant bi ak weer wi kon sujjóot booba mooy sujjóotub jaamu lu dul yàlla booba la sujjóot kon mooy sujjóotub bokkaale kon sujjóot bi nga xam ne bii moom la malaayika yi doon sujjóot ci aadama nag boobu sujjóot kon du sujjóotub bokkaale te moo ko sujjóot bu njëkk ba ñoo bokk mooy wadowal jabhati alal ardi maanaam jekki-jekki wat dëpp sa dëpp sa jëfi suuf boobu sujjóot mooy sujjóot bi nga xam ne bii mooy bi ñu bañ ba mu ko defee na kon léegi tey nun murit bu nu seetee kon li ñuy def suñ digganteeg sëriñ si ndax nun dañuy sujjóot xalaa euh, xaalihi alkaamil am nun sujjóotunu nun kay yaakaar naa ne sunu xoolee taarixub yoonu murit duñ ci mës a dégg mbaa nu mës cee gis mukk koo xam ne kii jàkkaarloo ak sëriñ tubaa dali dëpp jëm fi suuf ngir jublu ca jaamu sëriñ tubaa du nu mas a gisit ginnaaw sëriñ tubaa ak ñim fi bàyyi kenn koo xam ne kii mës naa jàkkaarloog benn sëriñ rot su jóot fi suuf ngir jublu sa jaamu boobale sëriñ loolu musta am kon su fekkoonte ne masoon naa am itam te it ka koy def jubluwu ca jaamu sëriñ ba waaye ma nga ca jublu màggal yàlla ak baaxug yàlla ak dëgëraay gi nga xam ne gi dëgëral na ko kii ak cërub kii ci yàlla ak yàlla ji nekk ci kii itam su fekkonte ne màggal loolu la jublu itam kon bokkul ak sa juutu bokkaale bi nga xam ne segam wax ja dëgg la sax kon mooy bii xolli ab jëboog mbaa muy xolli ah, ab loxo kon bukkul ak boobu waaye nunu murit jubluwun loolu nunu murit defun loolu li ñu def mooy lan mooy su fekkente ne noo ngi nuyu ko sunub sëriñ yëg gën yëg ak baaxam ci yàlla ak yëg gën a yëg jege gam jege ba te yëg it noo ngi koy teg ci sëriñ bi xam nañu ne moo nu gën a xam yàlla moo nu gën a xam yonent bi moo nu gën a xam sunna moo nu gën a ragal yàlla moo nu gën a topp itam li yàlla digle moo nu gën a bàyyi li yàlla tere ragal yàlla ci nun yoonu murit foofu lañ koy teg waaye tegunu ko ci ay yére tegunu ko ci feneen sëriñ ba nga xam ne gis nañ ko ne mu mel noonu bu nuy su bu nuy bu nuy sujjóot ci moom léegi tey dañ koy jox ñaari loxo tëpp sunu euh, sunu bakkan ak sunu gémmiñ ci loxoom loolu mooy cosaanul sujjóot ci murit léegi nag la nga xam ne moo cay tege di ca di jébba di ca laale dafa am ñoo xam ne ñi mënuñoo fexe ba teg seen bakkan teg seen ba teg seenu gémmiñ ci loxo te seen jë laalul lañu la la seen bakkan ak seen gémmiñ tege loola ñu ko man ci kenkoñ bariwut loolu moo tax waaye cosaanul yoonu murit moom li ciy sujjóot mooy foon loxo ki nga xam ne kii mooy euh, ki ngay euh, euh, ki ngay màggal te màggaloo ko màggaloo xottu jëmm ji waaye yaa ngi màggal gën gim la gën a jege yàlla ak gën gën gim la ko gën a xam ak gën gim la ko gën a ragal loolu rek mooy li nga xam ne lii moom la murid di def te it suñ ko doon def te jub te di ko defee li nga xam ne mooy jëmmi sujjóot it léegi kat dafay loola du tekki ne sujjóotu bokkaale la ndax noonu yàlla moom lii tax mu àtte la ngay nitu bokkaale moo di la nga xam ne lii jublu nga ko ci sa jëf te loolu kat dana ci leer nañ ci ne li ma lay bëgg a wax ku ñu wax abi hurayrata nee na yonent bi nee na ko alayhi salatu wasalaam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ahmalikum yàlla day du xool ci seen melo yi ngeen mel ndax ku weex ngeen wala ku ñuul du xoolit ci seen alal yi ngeen am du xool itam ci lenn lu dul seen xol lay xool ba xam am ngeen pëstéef gëm ngeen yàlla ak it li ngeen di def dana ko di xool ba xam lu tax ngeen di ko def su fekkente ne kon murit da doon it te dëppub jëm fi suuf ngir màggalu sëriñam ngir euh, teral ko ngir euh, yëg yëg ne yàlla ci boppam moo ko màggalit te jublu ca jaamu sëriñ ba it kon loola tekki ne yàlla dana ko jàppe muy sujootu bokkaale kon kon nun murit bi nga xamee ne defuñu loolu musunu sujoot dëpp sunu jëfi suuf ngir màggalu sëriñ waaye dañuy fóon loxoom ngir barkeelu ci moom kon yaakaar naa ne ki nga xam ne kii waxoon na li waxoon dafa am lu ko lëntoon ci yoonu murit moo tax waaye dama duna bëgg nit ki balaa waxati la muy wax nay lu ko leer nit ki bala nga koo bëgg seet ko ba xam ku jar a bëgg la wala ku jar a bañ nit ki bala nga koo bañ seet ko ba ku jar a bañ la wala ku jar a bëgg Sëriñ tubaa nag ngir nu bëgg ko mbaa nu bañ ko buñ ko àttee ci li nit ñiy wax bun ko àtte ci li tubaab yi bind buñ ko àtte ci dara nañ ko seet ci yetti yëf nan ko seet ci lim bind ndax lim bind dëppoo na ak sunna wala dëppoo wut ak sunna képp koo xam ne ki li Serigne Touba bind nanguwuloo koo yër nanguwuloo koo seet ngir xëy na la ca sa kooku amuloo droit kon ci wax ci Serigne Touba dara képp koo xam ne ki itam Serigne Touba ñii mu jur ñu nekk fi di Serigne Abdoul Ahad ak ki rakam wala Serigne Modou Moustapha la ko tàmbalee ci moom ba ci ki ci mujj di Serigne Mourtala gën ci ndawe ci saahir képp koo xam ne kii seet seetantoo la leen seet leen ba xam ñoom jub nañu wala dëng nañu baax nañu wala bon nañu ragal nañ yàlla wala ragal nañ ko am nañu xam-xam wala amuñu ko képp koo xam ne kii seetuloo ko foofu kon amuloo sañ-sañ ci atte dara képp koo xam ne kii itam Serigne Touba ñi nga xam ne àndoon ak ñoom yaral leen boppam nekk ak ñoom xam xamal leen yàlla yar leen ba ñu sell xamee woo Serigne Touba ci ñooña ndax ñu jub lañ walla ñu dëng lañ ñu bëgg yàlla lañu wala ñu ko bañ ñu topp sunu lañ wala ñu ko toppul képp koo xam ne kii seete woo ko foofu itam xanaa di ko seete nag feneen ak ak foo ko mën a seete fu bukk la yett yooyu muy li sëñ Tuubaa bind ñi mu jur ak ñi mu yar ku ko seetewul foofu kon foo ko mën a seete kon yaa ko atte ci sa atte bopp waaye atte woo ko ci fa nga war a atte te ko ci xam-xam itam kon nag la la cay dikkal ëllëg na ko yenal su mbirum bopp kon noonu yàlla na yàlla musal ci euh, loolu le su ko defee nag euh, nunu murit dina war a bëla wëlbatikuwaat nag fa tabaarakallaahu sant yàlla bu baax ndaxte nun euh, li ñuy def lu nu mën a defal sëriñ bi lu ko mën a jox lu ko mën a wax ci lu tedd lu nu mën a jëflanteeg moom lépp na ngeen xam ne jubluwuñ ca lenn lu dul màggal jëmbi yàlla jaamu yàlla ak teral sëriñ bi ngir suñu digganteeg suñu borom gën a mën a màgg suñu diggante yonent bi gën a leer looloon ci jublu waaye jubluwuñ ca leneen su ko defee nag kon léegi noo ngi sant yàlla bu baax nun murit bi nga xamee ne yàlla may nanu nu am ku mel ni sëriñ Tubaa te jaayanteeg moom jaayante goo xam ne kii mooy dëppoo jaayante gi nga xam ne gi euh, euh, sahabatu nabi jaayantoon nañ ko yonent bi ca bayxatu bi ñuy wax bayxatu ridwaan ndaxte na ngeen xam ne képp koo xam ne kii euh, jaayante nga ak Serigne tuuba te jaayante ga wér la muy digle nga di ko def la muy tere nga di ko bay na la wóor ne jàpp nga ci lu wér loo xam ne lii du du deng daay tey du deng daay ëllëg noonu nag def nañ loolu fas nañ ko yéenee wéral ci moom fas ko yéenee wéral ci ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi muy sëriñ Abdullahi Lahat ak rakam ak képp koo xam ne kii sëriñ Tuubaa moo la yaroon mbaa yaroon kala yaroon te nga nekk ci jub nekk ci baax nekk ci rafetal sa diine fas nañ yéenee jaayanteeg yow fas yéenee ànd ak yow xala samhi wa taati ak foo mën a ne nu leen xamale nag képp koo xam ne kii da nga noo fekk ci loolu loola ñàkk ga nga ca ñàkk a nekk tax nga bëgg nu génn ca ngir réer goo ko réere ndax xam nanu ne noonu Serigne Touba kenn bañu ko des koo umpale ni nga xamee ne wóor nanu ne yàlla kenn rag kenn ñemewu ko des ko umpale ni nanu wóoree ni itam Serigne tubaa kenn bañu ko des ko umpale li nekk ci Serigne ku ko xam te xam ko bu wér fokk nga ànd seeg moom ànd ak moom ci li mu nekk ndax xam na ne lu wér la kon nag réere dina réer Serigne Touba bu taxee nga bañ nga bañ nga bëgg nu génn ci itam noonu jàpp na jàppin wér boo xam ne tax dax na duñ ci mën a génn mukk abadan duñ ci génn te duñ ci génn ëllëg kon nag euh, loo mën a daj itam ci loolu la ñuy nekk su ko defee nag euh, nu dal leen di indil nag xadis boo xam ne bii moo dëppoog li nu wax ne la jaayante noog Serigne Touba ak jaayante noog ko ànd ak Serigne Touba te loolu buñ la ko waxee da ngay dal yaakaar ne ah nun noo ko def rek waaye tegunu ko fenn ah kay teg nañ ko fenn xadis laa lay bëgg indil boo xam ne ah yonent bi moo ko waxoon alayhi salatu wasalaam te ku ñuy wax ibnu hamar moo ko nettali te it ku ñuy uh, riwaaye min min riwaayati muslim muslim moo ko nettali ci téeréem jëlee ko ci ku ñuy wax ibnu hamar kon boobu taali boobu téere maanaam boobu xadis xadis bu am sanad bu wéer la te it maa ngi ko jëlee man ci téere bu ñuy wax riyaadu saalixiina soo demee ci paas numéro 294 ak 200 Euh, quatre-vingt-quinze da nga fekk xadis bi ci biir mu wax ne euh, qaala rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama man xalaa yaddan min taatin laqiya allaha yowma alqiyamati wala xujjata lahoo wa man maata wa laysa fi unuqihi bayatun maata milkatan jahiliyatan rawahu muslim yonent bi nee na képp koo xam ne kii jaayante nga wala nga dee ca amuloo ak jaayante mu ne yow ba xiyaamati da nga tasante maanaam képp ko xam ne ki jaayante nga ba mu jàgg maanaam jébbalu nga mu jàgg nga génn ci njébbal ga mbaa sax nga faatu te faatuwaale woo ak njébbal mu ne xalsat ngaa seek sa borom yomal xiyaamati te doo am lenn loo koy mën a wax nag loo xam ne mooy tax mu mën laa yërëm ba nga mën a mucc mu ne itam képp koo xam ne kii itam dafa njëkk a wax ne képp koo xam ne kii euh, euh, maanaam amuloo kenn koo xam ne kii amuloo sëriñ boo xam ne bi moom ngay topp képp koo xam ne kii amuloo sëriñ booy topp nga xam ne danga ngaa bëgg a topp sunna rek ci lu dul ngay topp sëriñ mu ne bu yema xayma dikkee da danga da nga jàkkaarloog sa borom te loo amu lay mu ne képp koo xam ne ki faatu nga te faatu wali woo ak jaayante mu ne bu yema xayamati de fa waa jaahiliya maanaam ña nga xam ne sa woon yonent bi te gëmuñu ko fa ñuy dekkee fa ngay dekkee ëllëg yaa ñoom yaay bokk fu ngeen dekkee loolu hadis la bu wér boo xam ne bi mi ngi nii ma tiim te wax naa la ki ko solo آه، آه، مسلم وحنا لا كيكو نتلي مسلم تموي ابن حمر تاي وخنا لا تيري بيكو جيلي تموي رياض الصالحين تموي باس 294 295 كون نك لغي نودل سي واتك يين نيغا خامني دا نينا خاوا ريري تي بنن حديث بو خاني بي مو غنا تربيله تا باتاي تام ño bokk fu ñu jóge te ñi mi ngi boo demee ci paas 295 296 mu jege bu jëkk ba ñoo bokk fu ñu nekk da nga ca fekk ibnu xamar naan yowmu fatahi makka annahu qaala rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها آه، في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن من هاس من ها آه، المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذين يحب أن يؤتى أن يؤتى إليه يوم القيامة ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه وإن استطاع فإن جاء إن استطاع فإن جاء آخر يناسعه فاضربوا عنق الآخر حديث بوبي يونس بموكو واخ منه yonent bi nee na ibnu Omar nee na yonent bi nee na amul benn yonent boo xam ne mas na fee jaar teddu la mu xam la ca gën wax na ko ñam ña ko topp la mu xamit la ca gën a bon wax na ko ña ko topp ngir ñu mën koo wattandiku loolu nag yonent bi ne maa ngi leen di xamal nag yéen ñii di ummatu muhammadin di ummatul islam maa ngi leen di xamal ne inna ummatakum haasihi joila aqibatuha fi awaliha seen lislaam ji ngeen nekk ni njëlbeen gi méttee woon kat ni la mij gi méttee ndax bu ndee ba ca mujj ga wa sa yusibu axiruha balaaun su nee ba ca mujj ga ay musiba dana xew ci ci julit ñi musiba yu metti ak mu ak wa umurun tunkiroona ak mbir yoo xam ne dana dis lool ba dana leen naqari wa tajiw fitnatun day dana am fitna yoo xam ne yi dana tax ñenn ci julit ñi danañ xeeb ñennat ba di leen sewal benn ñu sewal leen ci kaw ak réer wala lu ñu leen mën a sewale ba mu ko defee ci jamono yooyu nag dana diis diisaay boo xam ne bii ña nga xam am nañu gëm yàlla dañuy wax naan euh li day nun moo nuy xalak haasihi muhlikat yi lii alak suma yàlla musulut ci li kon dana alaku ndax dañuy tiit ci musiba ma nit ñi nek te fitna jooja moy fitna yi ñak gëm fitna yi ñàkk top kilifa fitna yi ñàkk fitna yi wutek sunna su ko defé nak loolu mo leen di indil fitna ji nag su ko defé nak ñu bax ñoñu yàlla dana leen rus ba fitna ja suma tankasifu wa tajiwul fitnatu fa yaquulu almuminu haasihi haasihi su ko defee nag su ñu baax ne jeexee nag ba fitna jee delsi bu keroogee ka nga xam ne kii am na gëm te nekkaat fa dana wax naan cey lii cey lii lu ma ciy musal bu keroogee nag maa ngi leen di dénk li gën a baax ci li nga xam ne lii moom laa xam la ca gën mooy képp koo xam ne kii bëgg nga ñu soril la sawara dox sa digganteeg moom doo doo ko gis doo doo ca jaar te it bëgg nga ñu dugal a àjjana te euh, doo ànd ak benn tiis na nga fexe ba fal ni maniyatuhu wa huwa muminun billahi wal yawmil axiri da nga fexe bu booy faatu nanga ànd ak gëm yàlla gëm ne yàlla moo la bind te moo la digal lu baax moo la tere lu bon ngir nga war a topp ndigalam war a bàyyi ak tereem te moo bind ñépp itam te it kon yàlla rek mooy ki nga war a jaamu nga teg ci it gëm ne bis penc ñëw na te te a bis penc dana dikk te buñ ci àggee fokk yàlla dana feeñ nga feeñ ñépp feeñ mu mu atte kenn ku nekk ci jëfam su ko defee itam ma digalal leneen loo xam ne lii moo gën ci li nga xam ne lii may it xam naa ko moom yonent bi mooy waxi de mu ne dinaa leen digalal li nga xam ne moo gën ci li ma xam la ca gën nag moo di wal yaati ila nnaasi allasina yuhibbu an yuta ilayhi mu ne fa nga xam ne bu nekk jamono jooju itam yow mi nga xam ne bëgg ngaa mucc na nga dem ca nit ña nga xam ne bëgg nga bu yemal xiyaamatee nga dekki ànd ak ñoom na nga fa dem faatoo fa ndaxte kat yemal xiyaamatee képp koo xam ne kii Euh, kenn ku nekk fa nga faatoo woon ña nga àndaloon ña biir nit ña nga nekkoon ba ngay faatu ñooñu ngay àndalaat dekki te yéenay bokk ab atte kon nag yaakaar naa ne ci biir loolu bala noo jàll yaakaar naa ne kon murit bu nekk wala nit ku nekk koo xam ne kii xam nga Serigne Touba ku mu doon bëgg nga dekki ànd ak Serigne Touba yawmal xiyaamati ku bëgg a dekki ànd ak Serigne Touba yawmal xiyaamati nag nanga fexe ba dëkk Touba mbaa nga dëkk ci lu ko wër mbaa nekk ci biir kilifteefu Serigne Touba yonent bi teg ci ma tegaleen ci leneen it loo xam ne li xam naa ne moo gën ci li ma xam mu ne wa man bàyya imaaman fa ataa u safqata yadihi wa samarata qalbihi falyutiu in istataa mu ne képp koo xam ne kii gis nga nag ilimaan ci sama ilimaan yi nga xam ne ñooy dikkaat sama ginnaaw di leeral lislaam di ko dundal ci seeni xol di leen wattu ci lislaam ba ngeen mën a dëgër maa ngi leen di xamal ne képp koo xam ne kii sasi nga cee kenn jaayanteeg moom jox ko sa loxoom mu jox la loxoom nga fasanteeg moom kóllëre jox ko soxolit fas yéene Euh, topp ndigalam bàyyi tereem mu ne rikk waay la nga ko waxanteeg moom na nga ko def na nga topp ndigalam te na nga bàyyi tereem su fekkente ne mën nga ko su fekkente ne ndigal la loo mën a topp la mbaa loo a tere la ndigal luñ mënta topp nag sëriñ bu mot du ko joxe ndax ndigal luñ mënta topp mooy loo xam ne wuute nag sunna ndigal luñ mën a itam ab sëriñ bu mat fokk mu joxe ko ndax ndigal luñ mën a topp lépp lu dëpp ak sunna lu mu doon rek nit war na koo man kon nag inistata jooju loolu lay tekki kon nag noonu su fekkente ne yàlla dafa noo dimbalee nu am kem ilimaan ju mel ni Serigne Touba ilimaan joo xam ne jii moom léegi tey mu ngi nii ñoddi ci yoonu siraatal mustaqim démb ak tey dina ci ñotti itam tey ak ëllëg dinu ñoddi ci barke dinu ñoddi ci xam-xam dinu ñoddi ci yëngutu ci jëfandikoo xam-xam kon nun képp koo xam ne kii jaayante nga ak sëriñ Touba wala nga jaayanteeg nit ngir jëmbi sëriñ Touba ngir fas yéenee jub ci yoonu yàlla képp koo xam ne ki def nga loolu lay sab sart yonent bi moo la ko digal nee na na nga jëfandikoo ndigalu Serigne Touba na nga bàyyi tereem ndigalu Serigne Touba ko tereem nag mosuñu ciy déggu mooy yàlla ndigalu tere tereg Serigne Touba mosuñu ndigalu Serigne Touba mosuñu ciy déggu mooy yàlla tereg Serigne Touba mosuñu cee gis ak jaamu yàlla Serigne Touba mosuta tereg jaamu yàlla mosuta digle it ak mooy yàlla lim bind boo ko seete doo ko gis te boo xoolee ñi mu yar duñ duñ ci nekk soo xoolee ña nga xam ne ñoom la jurit ci nekk kon loolu mooy li wér ma del si waat ci bi yonent bi daal waxaat nenu maa ngi leen di waxaat it yi nga xam ne yii moom itam moom laa xam yoo ca gën maa ngi leen di xamal ne fa in jaa aaxaru yunaasiuhu fadribu unuqal aaxari su fekkente ne jaayante nga ko sëriñ nag ba noppi nag jëflanteeg moom la nga jëflanteeg moom keneen ñëw nag koo xam ne kii dafa réere mbirum sëriñ boobee wala moom réere mbirum la nga nekk ba tax mu bëgg la caa génne mun a yow nanga nga dagg loosu waa joojale na nga ko rey yaakaar naa ku ñu dagg saw loos nga dee ko nag nun murit du nu dagg loosu kenn du nu lor kenn waaye nag daan la bàyyi ak Serigne Touba bàyyi la ak yàlla ak yonent bi ñoom ñooy daggal seen bopp saw loos nun suñu yoon du ci nekk. kon loolu maa ngi ko jëlee ci téere bu ñuy wax Riyadou Salihina ci paas numéro 295 296 soo ci demee da nga ci fekk hadis boobu yi kon li ma la waxoon ne la nun murid danoo jaayante. jaayante gi nii leen ko jëlee ci sunna waaye du teg gi ni muy loo xam ne danoo gis sëriñ bi rek mu xam ne kii moom lañ war a jaayanteel déedéet Serigne Touba moomu nag mi ngi nuy ñoddi ci xam-xam di nu ñoddi itam ci sunna mi ngi nuy ñoddi ci xam-xam ndax moo wax ne wal taalaman bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati ajal na ngeen xam yéen taalibe yi ne yaari yëf dénk naa leen ko dénk na leen ngeen yëg ne xam-xam ak jëfe xam-xam mooy njëriñul aduna ak alaxira lu waay bëgg ci aduna na ko ci sàkku lu waay bëgg ci alaxira it na ko ci sàkku lu waay bañ ci aduna yi na ko ci jëñ lu waay bëgg ci lu waay bañ ci alaxira it na ko ci jëñ muy sàkku xam-xam ak jëfe ko jëfe xam-xam nag Serigne Touba daf ko def mu nekk ay xaaj waaye nag nun ñu jàpp ko muy nekk ñaari xaaj rek xaaj bu njëkk bi moo di diggante jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi suñ ko waxee dafa am ñu nuy waxal ndax dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne jaamu yàlla mooy julli ak wérd ak yemel ni moom déedéet waaye suñ dee wax ak suñu bopp jaamu yàlla sàkk wërsëg ci la bokk sàkk lu lew ci la bokk kon Sëriñ Tuubaa moom dafa digle lépp loo xam ne luy tax nit ki mën a doon as gor luy tax nit ki mën a moom boppam luy tax nit ki mën a yaatu diggante boromam ba mën a jëf la ko yàlla digle mën a bàyyi la mu ko tere loola moom Sëriñ Tuubaa digle na ko te mooy liggéey ba mën a am loo dunde mën a am loo tedde ci lu dul nga di ko sàkku ci kenn ba mu di la biir loolu Sëriñ Tuubaa daananu dimbali جنو وان خم خمي بتجن أك بتجام جرين موهنة على علم ما أكسب خشية العليم فمن خلا منها فجاهل مليم كيف قو خم نكي بعنا أم خم خم بعنا أم خم خم بو أم جرين نعنا خم نه خم خم بأم جرين داي موي بعنا خم نه بوك جانج منافي دنا ليوك رجال يالله ميجا خم نه موي أجي خم بيب خم خم بوهنة بوك جانج منافي دولار يوك رجال يالله kon boobu xam-xam dafa la yokk réer waaye du la yokk mukk ab xam-xam gindi sëñ tubaa it mi ngi nii wattandikoo xeeti xam-xam yi ya ca bon mi ngi nii wax naan qultu fa laysa yanfaul abda ulum yarumuha li xubbi matxin laa yarim maa ngi leen di wax ne leen kat xam-xam bi nga xam ne bii waa ji sàkku na ko kat du ca ma njëriñ du ca mën a jëriñu mukk li fekk nga xamee ne su fekkee ba la tax mu di ko sàkku bëgg nit ñi ne am na xam-xam rek a tax mu di ko sàkku su fekkee boobu képp koo xam ne kii ba ngay sàkku xam-xam bëgg nit ñi yëg ne am nga xam-xam rek a tax nga di ko sàkku na nga xam ne boobu xam-xam moom doo ci jëriñu su diggante ak sa borom mu wala la si yutlabuhu al insanu li ajli an yaabudahu al aqran mune bépp xam-xam wax ya koy sàkku ngir da nga bëgg da nga yegg ne jamono ci xam-xam xewna fi nit ñi bëgg nañ xam-xam nga gis ne kilifa yi dañu am xam-xam nga bëgg am xam-xam ngir nga ngir nga nek kilifa ngir nit ñi top sa ginaaw itam loolu yit sëñ Tuubaa nee na booba am booba xam-xam du am jëriñ sa digënde ak sa borom mu wala la si yam qalban hasada aw hiqdan aw kibran way harumul huda xam-xam it bokk bi am jëriñ bokku nak ba nga xam ne soo ko xamee ba noppi du nga am iñaan dula la nga am non dula la tee nga rëy do dox sa digënté ginde la xam-xam ba am jëriñ moy ba nga xamné soko xamé ko xamee daf lay xamal né iñaan baaxut nga génné ki ñaan ci sa xol té ki ñaan ku ko def wo yalla ndax ki ñaan moy gis nit ki mu yor lu baax nga bëgg mu ñak ko ngir nang ko am loolu moy iñaan waaye nak ku koy def da nga gëmul né yalla li lepp ngi ci loxom ma hindakum yanfuru wa ma hindallahi baqin kon ku gëm loolu da nga yëg ne lu waay yor war nga ko yéene te yit say loxo yalla nak ngir mom mu jox la lo xamni li sax lam jox koka naka noonu xam-xam ku ko am day dox sa digganteeg ngay amum noon surtout noonu bu julit noonu bu julit xam-xam ku ko am day dox sa digganteeku rëy rëy gi nga xam ne gii moo yàqaloon iblis na ngeen yëg ne ibliis moom mii la ko xalak mooy rëy ga mu rëy lank su jootal aadama la ko dal moo ko ko teg kon na ngeen yëg ne loola moo tax malaayika yi ñoom ñu mucc ca rëy googa kon noonu murit li bokk na ci li ñuy jëriñoo ab sujjóot muy euh, feeñal sunu woyof suñu digganteeg suñu sëriñ bii feeñal suñu woyof suñu digganteeg seen sëriñ moo tax nuy foon loxoom won ko ne ko yaanu gën wan ko ne ko nangu nanoo nekk ci sa ron wan wan ko ne ko ne ko yaanu gën a jege yonent bi yaanu gën a jege sa borom loolu moo tax nuy sujjóot ngir euh, ngir euh, màggal ko ngir kon sujjóot mm, kon loolu lay jëriñ iblis rëy ndax bañ ko ne maa mën a xaq anta sujud li ma xalaqtu tinin xaala ana xayrun minhu rek xalaqtani min yéen wa xalaqtoo min tinin la ko wax suñu ko ne lu dox sa diggante nga sujjoon ci li nga xam ne bind naa ko ci ban mu ne ko dama koo gën ndax yaa ngi ma bind ci sawara te sawara gën a leer ban te itam ah, man du ma sujjoot du ma sujjoot ci loo xam ne li maa ko gën kon kooko daa rëy kon noonu mu rek dina yëgul ne noo noonu gën nan kenn soo gisee noonu defal sëriñ si ñu di ko defal ñi ci des itam nga xam ne koo gis fóon loxoom su jootal ko dañ ciy jublu ne nun ñi ñu tuuti lanu ñu woyof lanu ñu ñàkk solo lanu ci di ko ngir gindee ko sunu loolu looloon ci jublu kon la iblis la daan iblis loolu lay bañ mu dallu moo tax nuy fóon loxo yi di ko siyaareente di ko sujootante waaye jubluwun ci jaamu kii nuy sujootal jubluwun ci itam màggal ko ci lenn lu dul yàlla waaye noo ko ci jublu jaamu yàlla ak woyofal suñ bopp loolu lañ jublu kon yaakaar naa ne suñ sujjóot bi amut lor yaakaar naa ne bu mu sujjóot moom bokkul ci yi nga xam ne yi dana xolli ah, deru loxo <laughs> mbaa muy xolli deru jë defe naa boobu sujjóot moom bokku ci kon su fekkente ne xool nañ loolu nag damay jël si waat rek ci loo xam ne ah, ba tey ci sëriñ bi lañ ko jëlee moo di sëriñ bi moom daf noo xamal nag lu baax a baax tubaarkal la ndax danoo xamal suñu bopp bëggloonu suñ bopp yaakaaroonu suñ bopp xamul nanu it nenu lislaam kat kenn moomu ko ku weex moomu ko ku xonq moomu ko gan moomu ko dëkk moomu ko ku la fi jiitu taxul mu moom ko yàlla ko moom te it yàlla moomu moo ko jox yonent bi te yonent bi itam alayhi salatu wasalaam moo wax ne yonent bi alayhi salatu wasalaam moo wax ne ci bis bi nga xamee ne bii ne mooy yow mu makkata la yonent bi wax hadis bii ma lay bëgg a wax mu wax ne inna allaha لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان منكم له قلب صالح تحنن الله عليه إنما أنتم بنو آدم وأحبكم إلى الله أتقاكم ينتمي عليه الصلاة والسلام مو moo حجة ci xajjatul widaay te jamono yi إن الله war ci كسين ngor gi maanaam juddu gi ngeen juddu ci ay gor yàlla amul soxla ci loolu xoolul ci seen askan yu rafet yi nga xam ne yi moom ngeen juddoo xoolul ci seen yaram yi nga xam ne yi daa weex mbaa mu ñuul mbaa mu xonq amul soxla ci wuuteeg melo yi xoolul it ci seen alal yi nga xam ne yi moom ngeen am maanaam ki ñàkk alal bu mu yëg ne ka am bu mu jàpp mukk ne ka am alal da koo gën a ragal yàlla mbaa da koo gën a am da ko borom borom da koo gën fa boromam déedéet alal du tax kenn gën fa boromam alal sax dina tax nit yées fa boromam képp koo xam ne yàlla jox na la alal te dimbaliwu la ba nga xam la la war ca alal ja nga mën koo def xam la la la ca warut ba nga mën ko wattandiku kon alal ja mën naa dox sa diggante ku baax kon yonent bi ne yàlla xoolu ci seen alal yi mu ne li muy xool ci yéen mooy mi ngi xool seen i xol seeni xol la yàlla seet na seenu gëm toll na seen bësteef toll mu ne képp koo xam ne kii yàlla seet na sa xol te fekk ko muy xol bu baax bu yiwe bu sell yërmaane yàlla dana wàcc sa xol boobu yow moom mi nga xam ne sa xol sedd na sa xol sell na mu ne nag na ngeen yëg ne yéen ñoo ñii doomi aadama ngeen nit ñëpp doomi aadama lañu na ngeen xam ne doomu aadama yi ki ci gën mooy ki ci gën ragal yàlla loolu yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax loolu rawahul buxaari wa muslim ba mu ko defee ma tagal ci alquran ci suratul hujurat ya ayyuhal amanu inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu kun inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'aban wa qabail li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum yéen nit ñi ma ngi leen di yëgal ne bind na leen ngeen di gor ak jigen te lolu dama lay tekkil limi tekki mu wax ne gor ak jigen dañu sekk lo xamne kenn ci mënu koo jël bàyyi morom ma kenn ci it mënut bàyyi morom ma ñàkk koo jël kenn mënu ko cee muñ muy góor mënut a ñàkk jigéen jigéen mënut a ñàkk góor kon nag na góor jëriñoo jigéen jigéen it jëriñoo góor waaye nag ci topp yàlla mu tekki ne wa jaalnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafoo dama leen bind nag ngeen di ay giir ak i xeet ngir na ngeen xamante na ngeen xamante jooju nag li mu ciy tekki mooy nit ku nekk am na lu yàlla def ci yow loo xam ne defu ko ci sa morom loolu yàlla def ci yow te defu ko ci sa morom sa morom daf koy soxla waaye it sa morom yàlla def na ci moom xam ne defu ko ci yow yow itam la nga xam ni sa morom def yàlla def ko ci sa te nga soxla ko te nekkul ci yow kon xamante gi mooy ngeen leen dimbalante ci topp yàlla kenn ku nekk la nga bëgg te sa morom man ko te mënoo ko nga sag ko ci moom mu defal la ko ngir yàlla moom itam la mu bëgg te maam moom itam la mu bëgg nga ko te mënu ko nga mu sakko ci yow nga defal ko ko ngir yàlla te bañ koo sàkku ci moom ngir fayantoo wala leneen mu tekki ne inna akramakum inda llahi atqaakum ki gën a ki gën a baax ci yéen gën a teel ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla waaye néewul abyadakum wala aswadakum néewul itam këj ñi jiitu ñaa gën wala ak baax a jeex na déedéet loolu yépp euh, euh, sunu borom waxu ko Serigne Touba nag ci biir loolu mu dellu wax na ne wala yasudduka anil qabooli kaw nii xasiiral baaxi siisal jiili mu ne rikwaay yow mi nga xam ne yaa gis sama mbind mi ak sama mbir mi le ko ñàkk jël mukk ngir ñàkk gi ma ñàkk daraja sama daraja ju suufi ji bu mu tax nga ñàkk koo jël moo ba mooy masaalikul jinaan mi ngi ko doon taalif fii fi Mbàkke Bawal ba mu ko fiy taalif bi siiwagul nit ñi dañoo booba sëriñ Tuubaa daraja ji tolloogu ni war mu wax nag ña nga xam ne ko ëpp mu ne leen yéen ñi nga xam ne da ngeen amee daraja nag sa mbir mi ñàkk sama ñàkk daraja ji te ku am daraja di xeeb ku ñàkk daraja bu mu tax ngeen xeeb ma li bëgg a